yomi bagali Nana Nyakale, Fatoumata Machallah un nouveau puits euh, est lancé en ces beaux noms Machallah euh, puits dans ce village qu'on n'avait pas en fait et qui euh, parcourait 1,5 km à la recherche de l'eau il y avait euh, quelques puits de l'autre côté, mais avec de l'eau qui est amère, puisque sur la zone, euh, l'eau douce et agréable est un peu difficile. Donc nous allons tous prier ensemble pour que ce puits apporte euh, sur cette place qui est proche des, habitations une eau qui est agréable à la boisson et à, la cuisine. yàlla dogal am ay euh, suñu ay partenaires yu financé teen bi nii maanaam ñu génne seen xaalis jox ñu pour ñu ñëw defaral leen teen bi loolu moom moo waral ñu ñëw pour xool liggéey tàmbali liggéey bi pour mën leen koo yónnee war leen ne liggéey bi tàmbale nañ ko ñu ñaan yàlla mu may ñu ndam ci fii nga lii nga xam ne moom la ñuy sàkk muy ndox bu bëri ndox bu barkeel ndox bu mën a dimbale waa dëkk bi. di leen bisimilah di leen masawu coono li ngeen ñu indil fii de bëgg nañ ko bu yàgg dañ ko amul woon. ndax nun fi ñuy duyee ji dafa sori lool te bo la ngay duy il faut nga tak saret nga dem be fofu yobbu ay bidon nga duy indi ndax ñak ndox mu neex lu manque ma ndox ñun jigéen ñi la ñoo té ñuy dem ay kilomètre nga yenu benn pan bo accès du la sax jëriñ dara bëgg sangu bëgg japp sa doom bëgg sangu bëgg japp fekk do ko mo té dëkk bi manam liko ni palaas yoo xamante ne yi palaasu jur laak palaasu béy laak yëpp moo ko wër fii kon bu ñu amee ndox moo xamante ne mii ndox mu sell la dina baax si ñun lool lool lool lool lool ndax nit moom foo mënti dëkkati amoo ndox rek dëkk waaye dina xaw a takatémbe kon nag bu ngeen indilee lii ñu ngi leen ci sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokk bi ak wér bi ak kattan bi. kon bu leen yëkkatee teen bi ngeen indi nu ko den ci def kontaante bu baax di ñaanal yéen ñi ko indi ak ña leen jox ngeen indi yëpp yal na leen yàlla fay yiw yal na yàlla jàppale lu ngeen moon reen bu déwénee yàlla na ngeen am moon lu ko ëpp. ndax fii boole nga fee boole nga fee jënd dara di nga dox ay kilomètres nga doog a dem biti nga jënd foofu. bëgg na école arabe sunu xale yi bu sore la ñu jàngi gis nga ñi ñëpp dañuy jàngi sore bëgg nañu itam.

et qu'ils apprécient énormément. Machallah donc pour votre mobilisation euh, exemplaire une nouvelle fois au niveau de Andy Veil, ses donateurs, ses partenaires, pour qui nous prions euh, une longue vie, une bénédiction dans les actions et surtout, euh, et surtout de tenir encore un long souffle dans ce parcours euh, difficile de l'aide à autrui, surtout quand on ne le connaît pas et quand il est, quand il est très très éloigné de, chez nous et de nous-mêmes. Donc rendez-vous, Inch'Allah, dans, quelques semaines euh, pour l'inauguration de ce puits qu'on espère, Inch'Allah, euh, pas difficile et produisant une eau agréable.